bokk foto ngay yóbbu boo demee ñu roofal la kii ñëw di wut si jigéen ñi day ñëw xool foto bu mu bëgg ñu jël numéro boobu woo ko ne ko am nga saal nàngam xool leen mbon gi niñ ko yëkkatee xool leen mbon gi niñ ci ñemee te loolu yépp suñu noonu ñoo ñu koy yóbbee di ñu seetaanloo télévision yi di ñu won ay foto dem ba di def ay vidéo suñu doom yi di ko gis te duñu ko yëg di ñu won ay photo dem ko di def ay vidéo suñu doom yi di ko gis ko gis ko gis ko dak suñu njaboot gi ci seeni âge yu ndaw xale bu nekk xam na lan mooy xew ci biir néeg bi te duñu jàng ñu ko fenn lu suñu waajur yi daan ñu nëbbu da nga daa defe ne bu sa yaay ëmbee dafa lekk ceeb ba suur da nga daa defe ne mbir mi maanaam demeewul noonu tey nga toog yor sa portable tëju di ko xool nga gis ñaar ñu koy sekk ngay toog ba yàgg nga dem di ko essayé yi ci say moroom te nit jóge ci këram yor boroom këram dem jël ab photo dem di ko yóbbu ngir nga naa ko jaay beneen góor bu dul sama jëkkër nga am jëkkër tecc ana yooyu ñooñ ñooy ñan ñu gis kay jullit lañ déedéet ndax yëru ñu di jub kay jigéen jullit bu jigéen te yow nga xam ne sa yow man yow yaay yàq société bi yow jigéen jooñuy ndax di dem ndax ñooñu nga koy jox li ñu soxla dëgg muy góor ñi ci yow la nekk nga ñëw ne am sama foto bii dugalal ma fii ku ma woo dinaa ko wuyu kookii tey jii ba mu demee xaritu jëkkëram bu mu bokkal benn fi ñu nekk ci benn néeg ca fa ñuy tukki kooku moo jël foto boobu jël numéro boobu kooku lañ woowal kooku yow tamit yow mi ñibbisi sa jëg sa soxna di la xaar ay at donte la nga bëgg ci moom amoo ko waaye nga muñ te xam ne natt bu la yàlla jox la jar na nga génnee sa buntu ka dem bi mooy suñ borom te loolu mooy yàlla gu rëy mooy yàlla mënu koo gën a rëy nga bàyyi fa sa jabar li la yàlla may dem uti lu ko sut ndax li ngay seetaan yow góor googu li ngay gis te mënoo koo am lii may xool nan laay def ba di ko yëg te fekk na loolu yëpp ay bakkaar kese la ëllëg mu lay jiitu ci sa bàmmeel ragal leen yalla wala mu doon sax loo xam ne jigéen jii doyuma ndax ba ma dalee tukki yàgg na kon na balaa maa dem dama fee war a profité ba daje ci jigéen ñu bari loolu yépp di waxtu woo xam ne waxtu wu ndaw la yow nga jël ko dem muy ci sa borom doo ko dem te su ko neexoon faat la mbokki góor ñi tey ji ba mu fëggee buntu ba fekk ko moom ci boppam mu tëdd moom góor ji di ko xaar bi ne bërët dana ko yow diw mu ne ko yow nag xol leen jigéen ji ni mu amee fit yow doo meloo ne ku dee mu yàgg waaye kooku ñooñu dara du leen jot lu tax mooy ba nga amee fitu yóbbu sa lii sa foto di xaar ku la woo booba la am fit jàkkaarloo moom booba seytaane bu mag tiim na ko génn na nag lépp loo xamante ne ak njullit la lu tax lu tax mu génn ko jël sa bopp dem di ko jaayi ngir bëgg lan alalu àdduna kese jël merum borom mi di ci dox yow soxna si bi ngay génne sa kër li ngay dox lépp bay yëng yow génn nga loo sa borom digaloon nga dem di moy yàlla kenn du wax ne duut nekkatoob jullit de waaye dañ lay wax ne yaa ngay doxe ci mer moo xam ne sax da ko bind muy njaalo nga jóge ci sa kër yow wacc sa njaboot ji mu la bàyyiloon dem di doxi li nga xam ne moom la borom bi bañ mbokk ndax di nga yegg mbokk ndax doo tëdd ci lal bi rek yow ak moom mu rey la foofu nga dee yóbbaale boobu bàkkaar mbokk lan moo tax ba nga sësee mënoo ñaan sa baat ñu may la ko nga dem uti keneen am ful la juttal noonu ab jullit nga sañ nga ko ba mu bindee takk nga bind tas mbokki góor ñi ñi nga xam ne ñoo